bëggul woon dara ma continuer fii sax dara ci sama étude dafa bëggoon ma ñëw Canada ci moom. carrément. waaye man damaa ragal sedd. Mm-hmm. bon dama ko mujjoon def sax challenge nag comme man lu nekk dama koy def dama ci góorgóorlu. Mm-hmm. mu jóge bu 10 heures 11 heures jotee rek glace gi bëri rek ma takk samay godaas rek def sama blouson rek topp mbedd mi daw. Ah. ne damay affronter foofu sedd bi daal. pour affronter ko waaw affronter. te sedd bi defuloo dara. maanaam sedd bi benn femme tubaab jékki-jékki rek yéeg ci kër gi nii mais. mais monsieur Beng c'est là qui court derrière là c'est votre sœur mu ne ko oui oui oui mu ne ko la il faudra l'arrêter quand même parce que le foie ne va pas bien avec elle là. arrêtez elle passe ko ba comme dem sedd bi ñeme ma fee bañ a toog. Mhm. il faut ma toog fii il faut moom jàng ko mu jàng ma. Ah. su ma ñemee ma dóor ko su ma ñemee ku ma ko ñemee mu dóor. ku defar waa léegi ku defanteeg seddaay ndax di nga bàyyi président wala njiit. <laughs> jongante jongante sab loxo rek. <laughs> bon à la fin j'ai oublié bagage yi nag wax dëgg yàlla ñëw ndamanti groupe euh, famille bi góor gi. Euh, ak ñooñu ak famille bi euh, daal di jël samay bagage nag dem Italie. Mhm. def benn aventure bu xaw a yàgg tuuti. Mhm.